jàngataat ko bu baax a baax ñaar laa ci am yoo xam ne mën naa caa sukkandiku mu ndur ma sëñ bi waaye amaat naa ci fukk yuy tax ma weddi ni du sëñ bi loolu tax na daal bu dee dëgg rek man góob ne sëñ bi waaw ñu may indil nag luy tax ma nangoo ko waaye ba fii may wax ak yow daal nangu ma ne sëñ bi wax daal laa ci ne moom ku ne am nga droit nag. nga seet la la ca nga ne sëñ bi ndax sëñ moom jullit yëpp ko bokk murit yëpp ko bokk. Ah, man de sëñ bi daa mel ne fas bi daal wax dëgg yàlla man jàpp naa ne jàpp naa ne sëñ bi la ba keroog may gis lu gën a leer loolu tam ma bàyyi li ma jàppoon ndax li tax ma jàpp na sëñ bi la mooy bi ci jiitu ñun ñëpp maase nañ gëm ne sëñ bi am na foto waaw moom gëm nañ gëm nañu sëñ bi am na foto ba benn foto bi nga xam ne moom lañ gisoon ñëpp nangu nañu sëñ bi la kon sëñ bi mën a am foto moom lu yéen maanaa ndax am na beneen photo wala amu ko loolu itam lu mën a nekk la ndax gisuñu fenn fa sëñ bi ne benn photo la am gisuñu kenn ci mag ñi ko wax na sëñ bi ne benn photo bii dong la mas a am te tubaab bi yàgg nañoo ak moom lool te jamono yooyu photo amoon na ba vidéo sax amoon na te tubaab yi ñu fonk archive lañ kon sëñ bi am beneen photo moom lu yenu maanaa la lu mën a nekk la maanaam kon buñ buñ bañ a jàpp rek na sëñ bi benn photo la am loolu moom ku ko jàppee tegoo ko fenn ma tax a jàpp ne beneen photo am génn lu yenu maanaa la ñaareel bi mooy foto bi histoire bi mu dëppool ndax ki ko génne dafa wax ne le 11 mars 1918 bi ñuy teg xeer wi euh, njaareem loolu itam dafa dëpp photo bi dafa dëppoo ak événement bi ndax boo demee ci sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana dafa wax ne bi 1918 bisub altine te boo xoolee la 11 mars gii borom photo bi wax moo bisub altine boobu ñoo tolloo tegu xeer tamit la sëñ bi doon def ci foto bi nii gis nga ko dafa teg xeer wi julli ñaar raaka daal di daal di daal di doo am. suñ Mahamad Lam Diaw loolu la ko waxee nee na bi mu génnee ci nee na bisub dimanche lañ gas lañ gas pànk kam kambi njëriñ yi kambi ay kamb yu mag a mag ci jumaa ji euh, sëñ bi bi mu ñëwee ci nañ daa dugg ci biir pax mi ak suñ mataar bindaloo ak bagage ak ñeneen loolu nag day day kon pax mu yaatoo yaatu lawoon woon te loolu niru na ko ndax foto boo xoolee foto bi fii sëñ bi jullee doon te leerul bu baax di nga ñu ne ci bit di seetaan day mel ne ñooñu tiim sëñ bi kon fi sëñ bi nekk daa a xóot ñoom fi ñaareel bi tamit jëmmi photo bi ci boppam moom boo ko xoolee xool xar kanam bi ak taxawaay sëñ bi ak mbub mi mu sol nga xam ne mbub mu mel noon la baaxoo sol mbub moo xam ne day day xaw a gàtt ñaareel bi itam mbub mi amul poos bi ci toppaay itam mooy mbub mi boo xoolee loxo yi daa gën a gudd ma loxo yi gudd ba loxo yi du feeñ boo xoolee bi mu jullee ba jug di dem da gis ne loxo yi doo gis te loolu itam photo bu njëkk bi loolu nemmeekoon nañ loxo bi doo ko gis suñ mosuwaag yi na ne bi daana tegale ba léeg-léeg nga gis ne mu yor jëmm joo xam ne ëpp jëmmam neen daana sol dara sax jël ab jàllaa bi teg ko ci xeeti màndarga yooyu daal boo ko jëlee xool tamit ñi ne ci wetu sëñ bi ni nga xam ne noonu lañ ko war maale ñàkk sol daal la ñàkk sol mbaxana man xawma ci histoire ci jamonoy sëñ Tuubaa ak la ko jiitu koo xam ne say taalibe bi daan nañ la war maale jege la bañ a sol mbaxana a sol daal amutoon xamuñ ko woon ci sëriñ si jamono sëñ bi ak ñi leen jiitu ci jamono jii itam xawma woon benn sëriñ bu am kattanu tegu xeer abay tabax ci jamono ci Sénégal maanaam benn sëriñ boo amoon kattanu tabax dara ci 1918 ci réew mi amutoon maanaam amul benn sëriñ boo xam ne amoon a kattanu mën a tabax bu ko defee nag ñi nga xam ne dañ koy wedde di wax ne nit ñi niñ jege woon sëñ beeg bi dañ ko wegoon loolu moom am na la ko mën a dindi ndax li ko mën a dindi mooy bis bii da nga xam ne maanaam 1918 euh, la te 1918 fekkoon na sëñ bi jafe fekkoon na mu naqaree gis fekkoon na nit ñi daan ko namm loolu àggoon ci nit ñi sax mas nañoo buuxante ba dal ci kawam ba dagg aw dàllam ba dagg a baaraamam ci lañ ko def defaloon bareer yooyu ak kees yi ci kon nit ñi dañaan xër ci gis ko rawatina mu génn këru njëriñ ñëw ci penc bi ñëpp daan génn ko seetaan te ginnaaw événement la tegu xeer xam nga ne sëñ bi ni mu bëggee jàkk ak jàkk ji ni wax ne moom la ko borom maye mu koy fàttali jàkk jam e, yàqoon ca Gabon e, xam nga ne bisu mbégte lay doon ci moom boo xam ne du bokk moom dong faaw mag ña fa nekkoon nag ña ko a fekk ñëpp dana ñëw fekk si moo tax ñi ñu ne ci wetam day mel ne ñooy mag ñu ñëwoon ngir fekk si tegu xeer wala ndax bisu mbégte boobu nga gis ñe ñi ci des nga xam ne mën di seetaan ngir xeer guñ xeer ci kon jege giñ ko jege yooyu moom loolu moom du tubaab bii nga gis ci wetam itam mu mel ne ku yor ab cartable gàddu ko loolu yeneen na maanaa ndax sëñ Mouhamadou Lamine Dagal dafa ne ci bis bii lañ tàmbali liggéey bi te liggéey bi ay tubaab ko yoroon ginnaaw bi si Isaa nekkee jëriñ ji ay tubaab ñoo doon liggéey liggéey bi nga gis tubaab bi li ñu cartable day mel ne ay panaak yëf kon boo seetantalee photo bi daal ci niru gi niru sëñ bi ak jëmm ji ak événement bi mu tollool ak itam jàpp ne mën a nekk la wax dëgg yàlla man samay xel day nangu ne kii mën naa doon sëñ bi delluwaat ba ci euh, fi fi ko soxna Xadi gisee woon mais ki ko ki ko ki moom sax du du du ab euh, sénégalais day def affaire ar, aar ay photo yu bëri la jëli di ko recherché di ko dugal ci affaire u sitam bi nee na photo bi ñi ko ñi ko yor ñi ko jënd yor ko moom ko ñu ngi tudd mu ngi tudd Alan Roberts ak jabar ji Polly te ñu ko ñoo ngi ko ñoo ko jëlee ci ci benn auction auction soo ko déggee mooy foo xam ne dañ fay dem di jaay ay mbir maanaam bu ñu koy jaay ku ku ëppale lu mu ci fay xaalis rek loolu lañ koy jox maanaam mu ne photo bi photo photo bu bu bu wóor la quoi bu dëggu mu naxam nax euh, bi mooy ñaareelu photo bu nga xam ne moom la ku tedd ki euh, accepté daal maanaam moo moo mooy mooy ñaareelu photo bu gën a siiw mu si si si auction Belgique benn auction Belgique la mujjee woon foofu la ko alan boobu noonu ak jabar yi jëndee neen da ko dugal nag ah, ngir ah, fexe nu mu dellusiwaatee ba Touba waaw nee na soo demee ci benn website bu tudd Delcamp foofu la ko ah, auction boobu la ko gars yi jëndee la ko ñaar ñooñu jëndee lu yéeme yéeme yéeme parce que moom du Sénégalais mais xam na Serigne Touba xam na histoire Serigne Touba mu ngi